lendemain koo xam ne ministre de la justice la bokk bokk parti politique un greffier boo xam ne commencé exercer sax yàggul taxaw euh, def ay affaire moom it apporter une réponse ci sortie ministre de la justice mais qu'est-ce qu'on voit le lendemain ñu affecté ko coïncidence la xëy na règle de la république lu mën nekk la mais la coïncidence elle est elle est troublante waaw <laughs> soo ko jàppee rek nekk moom day politique mais man dama ko jëm a greffier la mën na nekk fii ak fële je pense que c'est sûr ci ci ci plateau bi mhm. la insurgé wu woon yaa ngi fàttaliku. yaa nga bis bi ñu bis bi ñu affecté le. Téliko Téliko xam nga yow maag yow dañu def émission. C'était, c'était vous et Babou Ndour j'ai suivi. oui maag Babou Ndour oui oui c'est ça. et je me suis. waaw j'ai été <laughs> scandalisé parce que dañu ne Téli dañu ne Téliko yóbbu nañ ko Tamba sanctionné nañ ko. Mhm. ma ne ah non. moi ah, je suis le président du conseil départemental de Tamba je suis Tambacounda sama papa Tamba la juddoo euh, on a de de grandes sommités Souti Touré euh, Khoureyssi Thiam Sidiki Kaba hmm. Moustapha Kassé docteur Abdoul Aziz Kassé euh, nous avons euh, Kandioura professeur Kandioura Noba nous avons des sommités Ablaye Camara ancien DG de l'ENA euh, Abdoul Aziz Camara hmm. écoutez ma ne Karim Assafourla li ma ne waruñu ñun ñu war a affecté ay nit ñu baax ñu am solo ñu ñu ràññee suñu dëkk ñu war a jàpp ne dañ leen sanctionné comme si ñun Sénégal nous n'avons pas le droit maintenant ñun d'avoir euh, des des magistrats de valeur ou expérimentés ou en vue wala yu am tur. mais est-ce yi def ba tey jii loolu nekk ci xelu nit ñi xam nga man je par rapport ak seen ay pratiques. je reste pour ko sanction lay ndiru. je reste sur les principes. am na d'autres exemples hein? le gouverneur de Tambacounda il s'appelle Oumar Mamadou Baldé mm c'est un grand commis de l'État pourquoi il pourquoi tu penses tu penses Mamadou euh, Mamadou Awa que lui il vit euh, le fait d'être gouverneur de Tamba comme une sanction le préfet de Tamba il s'appelle Mamles Kabou c'est un fonctionnaire c'est un anarque tu penses qu'il vit ça comme une sanction le, dérangent. le préfet Mortaletine non xaaral non le préfet Mortaletine de Dakar mm -hmm. il était préfet de Tambacounda donc et j'en passe bu ma bu ma duggee mën naa dugg ci de valeureux aujourd'hui euh, le trésorier pays régional Toupane mënoon na ne moom moom donc c'est pas une question de déranger quand on est fonctionnaire mhm. on est soumis à des règles règle yooyu moom mooy man ki lay affecté mooy sa supérieur par décret la et y a une règle essayons de voir si cette règle là a été respectée ou pas respectée Mm-hmm. c'est ça qui est important plutôt que de s'insurger sur le fait que un fonctionnaire a été affecté de Dakar à Matam. mais est-ce fi ngeen war a liggéey du ci jéem a dindi loolu ci xelu nit ñi parce que maa ngi wax sànq yéen politiciens yi. non ça yéen hommes politiques yi yéen a def loolu ba tey jii nii parce que ça a commencé avec. gis nga Mamadou bi ñu ko yóbbee emprisonné ko à Kédougou on a vu Guy Marius Sagna dernièrement ñu affecté ko Tamba mu bañ xaw ma Kédougou moom it. Euh, ma aussi tey jii nii le le jeune euh, mu tuddati sax le jeune de Pastef. dama ne. gis nga loolu depuis 1960 il y a des décrets qui affectent dans toutes les zones du Sénégal dans les quatorze régions ñun daal li ñuy bañ mooy. Mhm. ñu tuutal ñu suñu ay régions. mais da may nangu ne du Tamba. Kédougou waaw Dakar du Tamba mooy lan. mais ça mais ça ce que mooy c'est c'est quoi comme analyse. non mais ce que je veux dire mooy. non Awa. non mais man oh, xam nga yow quand même yaa yaa yaa mag loolu. quand même non dëgg moo neexul en fait. li ma bëgg a wax mooy. tey jii nii un homme politique qui est Dakar un activiste qui est Dakar il fait plus de dégâts quand il est ici que bu nekkee fële. Ah, d'accord donc yow def dégâts war na tax yow léegi ta la fonction première bi war a mën a tax nga jóg mooy servir l'État nga ne yow def dégâts moo la ko et pourquoi les gens travaillent pourquoi les gens sont des fonctionnaires. Sénégal moo bindoo noonu Dakar. fonctionnaire fonctionnaire amuloo dëkkuwaay. Mhm. surtout boo nekkee ay administration territoriale wala magistrature. c'est vrai. c'est comme ça que ça se passe. Mamadou Diagne Sy Mbengue il est DG de la SNHLM il a mhm. été préfet de mhm. et ailleurs et ailleurs. c'est comme ça que ça se passe. donc je ne vois pas. quelque chose d'exceptionnel bu ñu ma wax à part que jeune greffier gisoo sanction gisoo ko ci. mais moi, je ne vois pas de toute façon à Matam il va pas s'interdire de faire de la politique non parce que Matam ça fait partie du Sénégal. li mu mm. daan def Dakar mën na ko Matam. Ah,